alhamdulilah la ñuy wax boo gisee ñu taamu bés bi te defuñu ko la cinq comme niveau nationale bi ñun traditionnellement dañ ko def daaw mu neex ñu ne ñun dootuñ ko bàyyi pourquoi parce que non seulement dañuy regrouper sage-femme département yi yëpp ñëpp dañuy ñëw mais aussi dañu xool ni ci la ñuy gën a am jot pour mobiliser sage-femme département bi yëpp muy Ngaye Mboro Tivaouane looloo waral ñuy xaar toujours ba heure bi di ko def pour ñëpp ñëw ñëpp am jot. seen jafe-jafe itam jëm na ci ñàkk liggéey bi ci boobu ñun sentiruñu ko pourquoi parce que comme ni ngeen ko waxee association lañ nekk association boo xam ne ñëpp loo regroupé léegi ci biir loolu dafa am benn euh, jokkaloo boo xam ne dafa am suñu diggante ba même ngaay bu ñëwee indi référence wala district indi référence fële di hôpital ñun duñ ko sentir parce que ñunu neen la ñun sage-femme yi la ñuy contre référer ñooy référente suñu biir ba nga xam ne difficulté boobu nga xam ne ñeneen ñi dañ koy sentir ñun duñ ko yëg. am na ñu liggéeyul. am na aussi ñu liggéeyul ndax recrutement moom toujours dañ koy wax parce que booy xool sage femme yëpp mënuñ leen recruter état bi chaque année mu promettre mais chaque année aussi ñu nit ñuy xaar. boobu ba léegi aussi sage femme yi fi di xaar euh, recrutement ñuy ñaan yàlla xëy na un bon jour état bi dina góorgóorlu effacer le nombre de gàpp bi des ci sage femme yëpp ci kàttanu suñu borom recruter ñëpp. Euh, man maa ngi tudd Ndiouk Ngom sage-femme d'État donc euh, secrétaire générale de l'association des sages-femmes d'État du département de Tivaouane donc euh, tey ñu ngi fii daje di ci journée international de la sage-femme waaw. donc waa donc ñun dañuy def ay activités dépistage cancer du cole de l'utérus du sein et aussi planification familiale donc bi ñu defee suñu 15 mois yi donc dañu jël année 2015 plus les trois premiers mois plus le trimestre trois mois yi ci année bi donc gis nañ ne dépisté nañu 3000 3000 juróom-benn junni. ñetti junni lu ëpp ñetti junni ci ay jigéen donc euh, ci biir ñetti junni yooyu gis nañ ne soo jëlee téeméer bu ne ñaar fukk ak ñett yi donc euh, am nañu jafe-jafe ci col bi donc maanaam seen buntu butitu njurukaay donc ñooñu itam dinañ defaat beneen analyse bu ñuy wax frottis pour xool euh, jafe-jafe yooyu ndax lay jëm côté cancer wala itam dafa rek am weex yi génn ci kanam ba tax mu mel noonu waaw yooyu am na fi li ci ëpp euh, nit ñi duñu xam duñu xam euh, kii yi ni ñu ko duñu xam nan lañ koy jëlee en charge soit duñu ñu teel dem hôpital ba tax muy développé am ñoo xam ne itam seen borom kër yi du ñu faju da ngay faju delluwaat donc nga ñëwaat donc day récidiver à tout moment donc loolu le fait que muy récidiver à chaque fois nag mooy dem ba day chronique donc soo defee dépistage bi IVA IVL bi mën na indi un col suspect donc loolu mooy waral des fois taux bi élevé noonu mais après frottis bi da ngay gis ne tu un taux qui est restreint lan ngeen di xaar waa seen euh, yi lu ñuy xaar ci ñoom mooy ñu jàppale ñu parce que déplacement yi métti na poste yi sori na donc te da ngay déplacé wu dem foofu donc italiens yi nu ñuy jàppale mooy que femmes yi ñuy dépister ñu jàppale ñu pour ñu réaliser seen frottis ndax parfois parfois dafay cher ci ñoom duñ ko mën def donc dangay ngay dépister borom dem léegi italiens yi aussi dina ñu jàppale ci euh, ñi nga xam ne amuñu de cancer du col wala un col suspect ñoom am nañ problème gynéco beneen ñoom ñu jàppale ñu ci prise en charge boobu donc loolu la ñuy xaar ci ñoom ci convention bi ñu nar a signé. asalaamaaleykum madame Niaré Zeynabou Ka euh, chargée communication maanaam man maa yore lépp luy jëm ci tas euh, luñ lépp luñ jëlee ci li activité wala ci liggéey man maay tas man maa koy tas di ko communiquer di ko yëgal nit ñi. ñaari mhm. junni euh, mhm. euh, waaw mhm. bi jël loolu moom wax dëgg yàlla dafa nekk sunu naqarlu boobu ba léegi dafa nekk benn plaidoyer boo xam ne chaque jour benn gap la bu bu ñu war a combler maanaam benn benn étape la bu ñu war a franchir war a yokk lu ñuy recruter bien que état bi mi ngi def ay avancé parce que bu yàggul jëloon na téeméeri sage-femme yóbbu leen ci ay bërëb yu sori ci Sénégal mais à chaque fois dañuy la ñuy lancer plaidoyer boobu ñuy gën a yokk recrutement bi parce que am na aussi benn gap presque téeméer ak ñaar fukk sage yoo xam ne ñu ngi ñu ngi yor seen diplôme di chômer mm. ñaari junne ak waa ak juróom-benn. waaw euh, journée bi association des sages-femmes d'État du département de Tivaouane ñoom ñoo ko organisé. tey le 21 ndax euh, communauté internationale bi le cinq mai la koy def mais ñun dañ ko choisir def ko ñun parce que association bi dafa nekk association biy dundu biy dox tooguñu rek benn béréb mais dañuy jóg di dem di jàppale jigéen ñi si wàllum jàngoroy cancer naka leen koy fàggandikoo ci waañ mbirum planification familiale ci mbirum ay conseil ci seen ëmb ci seen bu ñu amee doom ba pare association la biy dox boo xam ne dañoo ñëwoon tey ci journée bi kër gir gën a mën a wane association bi seen action lu ñuy jëf ak yëpp léegi aussi tamit ak temu journée bi conformement ak thème au niveau national mooy euh, femme et nouveau-né au cœur de la pratique de la sage-femme mooy liir ak yaay ci biiru liggéeyu sage-femme ñëpp xam nañ ne sage ñaar lay gérer day gere yaay gérer doom ku mu gérer baay beneen ba rek dina am lu mu lajje wala dina am loo xam ne dina am faay léegi ñuy lancer waat tey ba tey autorités yi pour ñu jàppal ñu si ay matériel de réanimation ay couveuse ndax hôpital Tivaouane am nañ léegi pédiatre te aussi am nañ gynécologue te ku ne gynécologue wax opéré wax bébé yi seen prise en charge ñuy ñaan ay matériel réanimation bi wax aussi euh, couveuse bi ak yooyu daal ñu gën cee mun a jàppale ko